fédération bi bind nañu bataaxal lig bi ngir ñu saytu ko xool ko ba xam match boobee ñoom waa ligue bi dinañu ko mën a yóbbu foofee am déet waa fédération bi nag la ñu bëgg xayma seen organisation xool nu ñuy def ba dugg ba génn ba yemb ak tamit ña fay ñëw nekk ci jàmm ak salaam ba file ak ñuy ñibbi loole nag la ñu bëgg moo di laata ñuy jàkkaarloo ak ñii di waa Égypte le 29 mars ñu xam nañuy doxalee moo tax fédération ba buggul toog rek ba match ba xamaguñu nu ñuy doxalee loole moo tax derby boobee ñu namm ko faa yóbbu le 19 mars. ñu jugee ci fédération sénégalaise bu football dem ca waa Marseille ñoom nag seen président bi mooy wax Pablo Longoria moom nag la Provence moo ko seeti woon ñuy waxtaan ba yegg ci doomu Sénégal bi ak France mu ne nag foofu moom am naa fa défaite bu mag a mag ndax kii di Boubacar kamara xoole naa ba muy jógee ci club bi yemul sax ci jóge fi képp waaye daf fiy jógee te duma ci am ab dërëm kon nag moom xam Boubacar Kamara la ca xelam mooy soppi xar kanam Boubacar Kamara mii nag ku football yaakaar ci moom la nee na mënoon naa ko yokkal contrat nga xam ne buy dem ma mën koo jaay waaye loolee lépp defuma ko ba gone gi contrat bu saison bi jeexee day jeex tàkk la ca xel ma mooy soppi kanam. ñu jugee ci waa Marseille dem ca waa Lens nag seen gone gii di Sec Doucouré waa Ajax Amsterdam ña ngi koy bàyyi xel bu baax a baax la bëgg moo di kii di Gravenberch bu demee rek ñu mën wutali doomu Mali bii mu ñëw wuutu ko foofee defee ñoom nag di waa Ajax Amsterdam ñoon yónni nañu ñaari yoon fële ca Lens ngir ñu bàyyi xel gone gi waaye ñi ñu yónni woon ba ñu ñëwee la ñu xamal waa Ajax moo di gone gi baax na lool dem leen ngeen jënd ko ba tax na kat ubbi na buntu ya nee na nag ku ñëw ci club yi yaa xam Ajax nga wala beneen club ñun 20 millions d'euros lañ koy jaayee. ñu jugee ci waa Lens dem ca waa Real de Madrid ñoom nag ka di tàggat di Carlo Ancelotti tey jii bi muy jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di waajal match bi war dox ci diggante Villarreal ak Real Sociedad match boobee suba 20h la waaye Carlo Ancelotti xam na ne ne kii di Valverde du ca bokk ndax dafa sibiru waaye nag dina mën a bokk ci matt bi nga xamante ni mooy dox ci diggante Real ak Paris bu dee kii di Toni Kroos moom dafa am belesure moom du mën a bokk suba ca matt boobee bokkam sax ci match bi war a dox ci diggante Real ak Paris wóorut lu ñuy seetaat lay doon ndax gone gi gaañu gaañoom ba juróom wala juróom benn fan lay toog ñu jugee ci waa Real de Madrid dem ca waa Barcelone ndax kat ñoom kii di Alves bañ koy signéel foofee ca club ba la ñu woon mooy benn saison képp waaye nag ba mu ñëwee ak léegi ma ngay doxal bu baax a baax loolee tax na ñii di waa Barcelone ña ngay càmbar ay mbiram ngir sumb waxtaan mu yokkaat beneen saison moom mii di Alves loolee Marca yéenekaay moo ko xamle ñu jugee ci waa Barcelone dem ci borom Chelsea di Abramovich moom mii nag jaay ga mu bëgg a jaay club boobee bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport la mu xamle moo di ay milliardaires yu bari ñëw nañu fay ko ca xaalis ba muy laaj mu toll ci trois milliards d'euros loolee tax na Sky Sport nee na kat boo moytuwul filee ki fan rek di ngeen dégg ne Abramovich jaay na Chelsea ndax kat xaalis ay milliardaires yu bëri ñëw nañu fay ko ca loolee kon Chelsea daal boo moytuwul fileeg ay fan rek dina amaat keneen ku ko moom ñu jeexalee xibaar yi fële ca Borussia mun kii di rakk ci Eden Hazard di Torgan Hazard nekk foofee ca mun Dortmund yam beggandiwul dara ba tax na la mu bëgg moo di soppi xar kanam dem ca beneen club waaye kat waa mun ubbil nañu ko buntu ya nee na ñu nag club bu ñëw bëgg ko vingt millions d'euros képp lañ koy jaayee kon Torgan Hazard la mu bëgg mooy wut beneen club loole ki ko xamle mooy Bild gars yi yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci kanam ak beneen vidéo incha allah